je voudrais tout d'abord me réjouir. <clears throat> Euh, le Sénégal, vous le savez, est un état de droit. Notre droit prévoit que quand fait ce genre de projet, il se termine par cette audience publique que nous venons d'achever, après un débat riche et très approfondi et directement avec les populations. Donc euh, j'ai trouvé que les populations ont exprimé avec beaucoup de pertinence leurs préoccupations et nous en tiendrons compte Euh, et nous, les, nous allons l'intégrer dans notre programme euh, de gestion environnementale et sociale. Et c'est une satisfaction d'autant plus que le document a été approuvé par euh, les populations Non, euh, je suis d'autant plus satisfait que les populations comprennent que ces projets font partie euh, des éléments qui feront renaître les ICS. Et euh, je suis particulièrement satisfait de voir que les populations soutiennent l'entreprise Bien sûr, elle nous interpelle avec beaucoup de vigilance et nous saurons euh, répondre à leurs euh, interpellations en faisant en sorte qu'au fur et à mesure que nous organisons ce genre de rencontre, qu'il y ait moins d'interpellations sur les problèmes d'émissions ou de pollution. Alors, notre centrale électrique va avoir une capacité de production euh, de 33 MW. Et euh, l'objectif, c'est d'abord euh, de, euh, de, permettre aux ICS euh, d'être euh, euh autonomes en matière d'énergie électrique, tout en conservant des relations de coopération et de travail et, de, et des relations contractuelles avec Sénélec. Voilà. dama kontaan parce que xam nga ta nekk ak population yi ñuy waxtaan ci lu am solo ci euh, avenir u ICS population yi jox ñu ay xel yu am importance parce que gis naa ne population yi xam nañ ni industrie di di doxee ñoom jox nañu ay xalaat yu am solo yoo xam ne dañ ko boole ci projet bi ci euh, liñ fi wax yëpp muy affaire ndox mi muy affaire liggéey beeg. ak euh, ndimbal bi ñu war dimbale jigéen ñi xale yi dañ ko boole ci projet bi incha allah. document bi approuvé euh, non euh, document bi niñ ko approuvé kontaan naa ci lool maa ngi gërëm population yi di gërëm état bi parce que xam nga état bi toujours day jàppale ICS. ak maire dëkk bi ak ñëpp ñi nga xam ne en tout cas ñoom ñooy encadrer entreprise bi parce que entreprise bi waa gox bi ñoo ko moom d'abord. non xam nga entreprise bi suñ defee projet boobu muy def 33 mégawatts dana amal njëriñ i ICS doot dana dana mën a dem ak boppam ci affaire courant wante nun dañuy am toujours relation avec Senelec parce que waa Senelec suñu xarit lañu suñu partenaire lañu euh, donc dana amal njëriñ ICS amal njëriñ Senelec amal njariñ réew mi voilà